mbokk yi na Yatal Vision dal leen ak jàmm ci xibaar ñu di koy yéen ci la gën a fés ñu daal di koy door mbirum Ousmane Sonko nag moom Ousmane Sonko ginnaaw ay kaddoom yoo xamante ni bii yëkkati na ko nag nekki de bërki démb daal di koy jëmale ci askan wi nag loolee ñu bëri nag indi ci ay kaddu yoo xamante ni bii nag jàpp nañ ca li xamante ne bii moom la Ousmane Sonko wax ñu ci bëri nag daal di xam xamle nag ne kii di Ousmane Sonko nag waxi démbam jilee nga xamante ne bii jàpp nañ ne enregistrement la vidéo loole nag dafa nekk mbir moo xamante ne bii lu mu xamoon la lu leer nañ ñi ci ab boppam jàpp ne askan wi ñoo yor nag mooy procès bi nga xamante ne bi moom la Ousmane Sonko naal loolee nag tax na ba lenn ci opposition bi nga xamante ne bii dañoo féete woon nag ak seen bopp ngir daal di posé candidat jëm ci élection yooyu yële dañoo daal di nag bàyyi lépp lu nekkoon nag fas yéene jàppale kii di Ousmane Sonko ci élection yi la ku ci mel ni Mary Teuw Niane bokkoon ci alliance la république mooy Benno Bokk Yaakaar ñoom nag moom da moom da cee bokkoon waaye ki xamante ne bii nag moo di kii di Aminata Touré moom it dafa daal di bàyyi lépp lu mu nekkoon daal di fas yéene jàppale ji ki nga xamante bii moo di Ousmane Sonko loolee.